ناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله دائرة المسنين والمسنات ينا بن سنت يلا دجولي سسانغ سانغوي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيوم نيو di siara siyaara di nuyu ñepp kep ko xamne rek yaa ngi si biir kër gi ñu lay nuyu nuyu islam di la jox sa way di rafetlu allah di fi jaar yépp ci wax ju rafet di ak njàngale rafet mi di delluwaat di leen jéggulu ci tardement yi ngeen jéggal na ko bu baax léeg-léeg ay xat-xat lay doon waaye léeg-léeg tamit ay jafe-jafe lay doon si wàllu appareil waaye ñu ngi leen koy jéggulu ñu ñëw rek continuer waat sunu téere bi muy axdari yu ñu war a commencé tey si bunte bi ne wax baabu sax bi moy keppu ko xamne yaangi julli joom sahel dina delluwaat ci buntu baabu sax bi kon foofu lan war a commencé tey incha allah mu ni baabun fii sax wi wa sujudu sax wi fii sallaati sunnatun فلنقصن سجدتين قبل السلام بعد تمام تسهدين يسير بعدهما تسهدا آخر وسيادة سجدتان بعد السلام يتسهد بعدهما ويسلم تسليمة أخرى ومن نقص وساد سجد قبل السلام ومن نسي سجود قبلي حتى ظلم سجد إن كان خريبا وإن طال أو خرج من المسجد بطل السجود وتبطل الصلاة معه إن كان على ثلاث سنن أو أكثر من شارك وإلى فلا تبطل ومن نسي سجود بهد سجده ولو بعد حام ومن نقص فريدة فلا يجزيه سجود عنها ومن نقص فالدائل فلا سجود عليه moo tax mu ne baabun lii bunta la fii sax wi si wàllu jamaj si wàllu juum boo jàngi axdar yi tamit te jàngoo bunt bi sa axdar yi day des yeneen ne mën nga koo lijjanti waaye bu dee wàllu julli lu si bari dina la réere moo tax kon bunt bi ñuy wax baabu fii sax wi maanaam bunta la buy wax si wàllu julli li koy defar ak likay jeng ak likay jubant ma sha allah muni wa sujudu sahwi sujudu jamaj fi salati si julli sunnatun nyelna sunna walli nuxsani nyelna ajawan di si julli sajjadataani dina sujud ñaari sujud khabla salam lu jiitu muy salmal waaw nee na képp koo xam ne daal yaa ngi julli maanaam ba juum bu fekkee li nga juum sunna la bu boobaa sunna danga koy sujjootal xabla salaam ndax farata kenn mënu ko sujjootal waaye nag bu dee sunna boo bàyyi mën nga koo sujjootal moo tax mu ne kon képp koo xam ne dangay ngay julli te wàññi si julli ji lo xamni sunna la bu boba da ngay sujjoot qabla salam lu jitu ngay selmal ngay sujjoot ñaari selmal ñaari ñaari sujjoot muni ni noo koy defee mu ni ba nga matalé tasahu de ni si ñaari taaya yi ndax bu de julli yent rakk ñaari taaya lay doon da ngay julli ñaar rakk tok taaya julli wala yeneen ñaar taaya moo tax mu ne nag kon bax da tamaami ba nga matalee tasahudee ni si ñaari taaya yi yaziidu da ngay dolli bax duxuma si gannaaw ñaari taaya yi tasahudan taaya axara beneen waaw maanaam attahiyaatu lillahi saakiyaatu lillahi tayibaatu salawaatu lillah ba mu jeex bala ngaa wax asalaamaaleykum nga daal di sujjoot nag ñaari sujjoot daal di taayawaat après nag daal di dooro selmal kooku mooy xabla salaam kon julli ñaare léeg-léeg bu dee sujudu xabla salaam la julli gi day am ñetti taaya bu fekkee wàññi woo sunna bu ni wax moo tax mu ne kon bax da tamaami gannaaw ba nga matalee tasahuleen si ñaari taaya yi yaziidu da ngay dolli bax du xuma si gannaaw ñaari taaya yi tasahudan taaya axar beneen su ko defee nag nga daali selmal julli ga jeex kon loolu mooy xabla salaam mu dellu waxaat ni wa siyaadatu aji yokk si julli kii julli yokk si julli gi yokk boo ko déggee si julli nag mooy julli gi am nga loo si dolli te bokku am nga loo si dolli te julli gi waroo ko si woon a dolli kooku mooy kii dolli ki wàññi mooy lum mu waroon a def defu ko ki yokk nag mooy loo xam ne bokkul ci mu def ko si kon kooku lay waxal moo tax ma ne wa siyaadat aji yokk si julli sajada taani lay sujjoot ñaari sujjoot moom it kañ la koy sujjoot mooy baxda salaami ginnaaw ba mu salmale bi mu jullee bi julli gi jeex day wax assalaamu aleykum daal di sujjoot ñaari sujjoot nag sujjooti benn bu su nekk day kàbbar comme ni muy sujjooti rek buy julli mu sujjoot ñaari sujjoot waat sëlmal moo tax mu ne wa siyaadatu aji yokk si julli kii julli dolli si julli gi sajadataani ñaar sujjóot la sujjóot baxda salaam ginnaaw bu sëlmale mooy ginnaaw bu jullee ba julli gi jeex nee na yetta doon mu taaya baxda xumaa si ginnaaw ñaari taaya ya moom taaya na ñaari taaya moom it day taaya waat beneen taaya mu ne woyu sallimu sëlma taslimatan sëlma uxra beneen kon bu dee baxda salaam julli gi ñaari sëlmal lay doon waaye xabla salaam moom benn sëlmal la baxda salaam nag mooy ci julli bi julli gi jeex mu sujjoot ñaari sujjoot comme bi mu jullee bi julli gi jeex dana asalaamaaleykum daale waxaat allahu akbar nag daal sujjoot ñaari sujjoot taayawaat sëlmal kon baxda salaam mooy julli goo ni ne ñaari sëlmay lay doon ñaari sëlmal moo tax mu ne wa siyaadat aji yokk si julli sajjadataani ñaari sujjoot lay sujjoot te naka sujjor mooy bahda salami mooy ginaaw ba musulmane bu julle ba julle gi jeex mu ne def mune yatta sahu saxu dana taaya huma si ginaaw ñom ñaare taaya yi su ko defee wa yusallimu musulman taslimatan benen sëlmal ukhra benen kon loolu momit moy mooy salam kon legi mu ngi wax tamit ki julli ki kat julli gi dese yokko wàññi ci julli gi yokk na boo boo yokkee si julli xam nga baxda salaam ngay sujjoot waaye boo wàññee xam la salaam ngay sujjoot léegi genn julli gi nag yokk nga si wàññi nga si moo tax mu ni wa man naqsa képp ku wàññi wasaare mu yokku ba boobaa nu muy def mooy sajjada lay sujjoot xabla salaam kon képp kuy julli genn julli gi yokk na si wàññi na si ba boobaa day bàyyi baxda ba lay xabla salaam lay sujjoot motax yow mi jangal hadari yu bu la nit poser question ni wa man naqsa wa sada neng kay wax rek moy sajada khabla salam ko le ni wa man naqsa wa sada ne nga sajada khabla salam bu jokon mag ni daanan la wa yow hadari nga ne waw ñun la wa man naqsa wa sada su ko defé nga ni khabla salam waye bu wa man naqsa wa sada wa man naqsa wa sada rek. an sajada baxda salaam da ngay daal di daan te boo demee si yeneen téere yi tamit noonu lañ ko indee ku képp ku julli si julli gi nga yokk si wàññi si waaw nan la ñuy yokk si génn julli gi wàññi si xam nga man ngay julli ngay julli di julli di julli maanaam yaa ngi waroon a toog taaya nga bàyyi taaya ba continue julli gi xam nga wàññi si julli gi wàññi nga si julli gi nga demaat tuuti manam troisième raka wala ben bu fekke julli gun war a wax ndank la nga wat sa kaw ta xam nga tari sa kaw yok la bo boba kon julli gi wañ nga si yok nga ci kon bo boba ku yok si julli ku tari sa kaw fo wara tari ndank ba da nga wara a ku bàyyi ab xam la nga wara a ñaar yoy dajé kon boba nee kon bàyyil ba nga xabla salam kon wa man naqasa kep ko xamne ne na ci julli wa saada mu yok ci julli gi jarale su jot khabla salam bobu masala jeex legi benen bi nak muy wax ki nga xamanteni si daa war a sujjoot xabla salaam fàttek waw yow da ngay julli fek julli gi wàññi nga ci waaye bi nga waree su jot khabla salam nak dang ka fàtte da nga julli bu julli gi jeex rek nga daal selmal sëlmal nga ne yow nga su jot moo tax mu ne man nasiya képp ku fàtte sujjóoda xabliya sujjóoda xabla képp ku waroon a sujjóoda xabla fàtte ka xataa salaam ba ba sëlmal ba wax asalaamaaleykum te afaa muy sëlmal la ko waroon a def nee na nu muy def mun sajjada na sujjóot in kaana xariban in kaana xarib nag mooy bu fekkee fa mu doon jullee jógeegu fa bi mu sëlmale rek la ah man la ne ah man ka ndek damaa waroon a sujjóot xabla salaam wone ne boobaa kon sujjóota rek léegi bax da comme sujjóot bi bax da lay bax da bax da lay taxawe moo tax mu ne sajjada da ngay sujjóot in kaana xariban su fekkee aji jege nga wa in taala ndam yàgg na nag aw xaraja wula nga génn minal masjid di jóge sa jàkk jàkk ja ba tare da yàq sujjóot sujjóot ba su fekkee nag fu nga doon jullee moom jóge nga fa ba dem moo xam wala benn tool nga doon jullee ñëw ba si kër gi door ko fàttaliku wala benn sa jàkk nga doon jullee fàtte ba jóge sa jàkk ja ah nee na kan batala yàqu na sujjóot sujjóot ba sujjóot ba baaxatul mu ne ah mu ne même wa tabtul salaat julli gi day yàqu ma wa ànd ak sujjóot bi julli gi day yàqu sujjóot bi day yàqu waaw wa tabtul salaatu ma xooxu sax day yàqu ànd ak sujjóot bi bu fekkee in kaana dem nekk na ala salaa sunanin bu fekkee la taxoon nga war a sujjóot nag daa mat ñetti sunna bu fekkee nag yow li nga bàyyi woon si julli gi mat na ñetti sunna moom ndax sujootu baax daal léeg-léeg day am côté yoo xam ne si balaa mën a nekk day da ngay bàyyi lu mel ñetti sunna comme ñetti sunna mooy lan lu mel ne benn allahu akbar xam nga benn allahu akbar allahu akbar yi nga si julli benn rek bàyyi ki du tax kenn sujoot waaye fekkoon mat na ñett allahu akbar yoo war a wax te waxoo ko kon léegi day taxawee ñetti sunna moo tax moo ni wala benn nga bàyyi woon ab taaya bàyyi ñaari kàbbar xam nga kon li nga bàyyi mat na ñetti sunna moo tax mu in kaana nem nekk na ala sala sunna nin la nga bàyyi daa mat ñetti sunna booba sujjóot ba yàqu na julli ga yàqu na waaw waaye balaa mën a yàqu rek day mat ñetti sunna in kaana nem nekk na ala sala sunna nin la nga bàyyi mat ñetti sunna aw aksara sara wala lu ëpp ñetti sunna min saalika si loolu waaw mu ne bu ëppee ñetti sunna daal wala mu man ñetti sunna julli gi day yàqu wa ilaa nag su fekkee matul ñetti sunna moom li nga baye matul ñett sunna mom neena fala tabtulu salatu neena julli gi yaqul wa fala tabtulu du yaq salatu julli ko bo baba julli gi yàquwul waaw boobu masala daanu benen bi tamit muy ñew di wax ci su jot bax da fatte ka manam waji da julli ba pare te bimu julle ba selmal bax da la waroon sujjóot waaye moom fàtte na ko moo tax man nasi ko su sujjóot bax su sujjóot bax da sajjadahu dana ko sujud képp ko don sujud ba da ga dana ko sujud mun ne ba da ham don ta na at sax wa don ta na at ta ginnaaw at la sax ar bu fatli ko ni man waroon na ma sujud ba da fat fum ko ko rek mun boba da war a ñi ni fum ko don julli la kay def ñenn ñi fum ko fek rek la kay def waye li gëna jappandi moy fum fu mu la fekk ndax tay mënon nga ku demone ba Ah, Maroc war faa sujjóot baax da fàtte ko ba ñibbi ci Sénégal door kaa fàttali ko est-ce que di nga demaan Maroc di ko fa sujjóot kon moo tax ñu ni wala baax da xaamit doonte ëpp na at tamit foo ko fàttalikoo rek da nga kaa war a sujjóot mu ni ma man sa waaw boobu masala daanu na mu jël beneen mu ni ma man naqsa képp ku bàyyi faridatan farata képp ku xam ne yaa ngi julli bàyyi farata farata yi julli yi nga xamante ne si mooy ponk yi booy julli bàyyi si benn wa man naqasa képp ku bàyyi faridatan farata si julli wala yujisi du kay jeng manuko jeng sujud ab sujud hana si farata mom kep ko julli ab ab sujud mënu koo defar li li indi rek li koy defar rek wat indi wat kon kep kuy julli bàyyi si julli ci farata jappal na farata bobu nga bàyyi manam ab sujud du ko defar Info farata ba di nga ko wat wok indi wu rek julli gi day yàqu wa yabtadi uha kon il faut nga commencé waat julli gi sunna lani <coughs> sunna lani su jotal waaw waaye farata moom ku ko bàyyi si julli indi rek ba julli gi yàqu moo tax mu ne man naq sa faridatan képp ku wàññi si julli ab farata falaa yu gis si du ko jang su su xanaa ab su jood mënu koo jang masal mu daanu mu wa man naqasa ku bàyyi faday la ngëneel képp ku am da nga bàyyi ngëneel nag képp kuy julli bàyyi ngëneel ngëneel mooy lépp lu ñu sopp lépp lu ñu sopp nañ ko si julli kooku boo ko bàyyee sujjul waru si ay rabbana walakal hamdu ah ay ay ay ay subhaana rabbil azimi wa bi amdihi ay subhaana rabbi ahla ay ekkiti say loxo teg say loxo say dënn wala ekkiti say loxo ba mu tolloo say nopp comme yi nga xam ne ay ngëneelu julli daal yéen sopp wala lu ma ne ay xunuut yooyu moom ay ngëneel ak yooyu moom boo ko bàyyi si julli te juróom doo tax kooku du yàq julli kooku nag boo ko sujjotalee sa julli day yàqu kon ngëneel moom kenn du ko sujjotal kon faratal kenn du ko sujjotal ngëneel kenn du ko sujjotal lan la ñuy sujjotal maanaam mooy sunna moo tax ma lu ma naq sa képp ko wàññi farida faddaay la ngëneel falaa sujjooda déet sujjoot xale yi di war xam naa ne buñ gënee xuus si biir dinañ si gën a am lu leer nañ nañ nañ nañ incha allah kon sa ko defee masala yi noonu la tëdd ñu ngi leen di delluwaat di leen siyaar yéen ñëpp nag di leen jéggulu lépp luñ si jóom rek ñu ngi koy jéggul sunu borom te xam ak dexar lañ si bëggoon waaye lépp luñ ci war a jubbante rek tamit ngeen jubbante ko incha allah barakallah